Sall wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee na noppeegul de am na ndombo goo xam ne ndombo njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu kayit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi néew kattan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde jabet ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg a gis nag ma nga ca cité Aline Sow waaye képp ku bëgg a jokkoo moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne lasraar bu yàlla baaxal. ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di Cheikh Fall moom nag ma ngay football ca Saint-Étienne gone gi nag amul woon contrat pro waaye jamono ji xaatimal nañu ko contrat pro. kon mën nañu ko aj nag ca équipe aaba mu doxal contrat bu bees bi mu xaatim mi ngi war a jeex ci atum mille vingt 2026 gone gi nag milieu offensif bu mën la muy def la ay jamono daan na football fii ci réew mi club bu ñuy wax Guédiawaye football club kon nañu ko ñaanal mu doxal ca Saint-Étienne Saint-Étienne nag ma nga ca Ligue 2 bu France Cheikh fal mii nag la muy def mën ko lool kon nañu ko ñaanal mu doxal foofee ëllëg mu ñëw ci équipe nationale bi doxal ñu jugee ci Cheikh fal ak contrat bu bees dem ci CAN U23 bi nga xam ne jamono ji ñoo ngi ci muy amee ca réewu Maroc xam nañu nag ñeenti ñiy jàkkaarloo ca demi final ya demi-finale yooyee nag mardi di talaata la ñu koy jongante match bi njëkk a am nag mi ngi war a dox ci diggante Égypte ak Guinée bu 17h jotee la match boobee di door beneen bi 20 lay door Maroc midalo daloo yëf yi mooy jàkkaarloo ak Mali waaye ñeenti équipe yii nag dem ci demi-finale yi ñetti képp ñooy dem ci Jeux olympiques yi nga xam ne ci réewu France la ñu koy amalee muy ki jël ak ki jël deuxième ak ki nga xam ne moo jël troisième kon nañu ñaan ñetti équipe yi mën qualifié ca jeux olympiques ya teewal fa dénduk Afrique demi-finale yooyu nag mardi di talaata la ñu koy jongante incha allah ñu jugee ci CAN U23 bi dem ca waa Inter ñoom nag ñoo ngi waajal ginnaaw bi ñu jaayee Marcelo Brozovic li ñu bëgg moo di dem ca waa Chelsea toog waxtaan ak ñoom jënd Lukaku wala ñu abbu ko waa Chelsea jamono ji loolu la ñu bëgg ñoom nee nañu dàquñu sax mu ànd ak option d'achat boo xam ne obligatoire la maanaam far force lay doon bu saison bi jeexee ñu jënd ko bu Chelsea bëggut loolu tamit ñoom bëgg nañu Chelsea abal leen ko mu ànd ak option d'achat boo xam ne du force maanaam bu fekkee doxal na saison bi jeex bu leen neexee ñu jënd ko bu leen neexul it ñu bàyyi ko mu delluwaat Chelsea jamono ji ñoo ngi baral jéego yi ngir am doomu bi ci Fabrizio Romano ñu jugee ci Lukaku ak waa Inter jël doomu Portugal bii di Joao Félix moom nag jamono ji dafa doyal sëkk ca Atlético de Madrid jamono ji bëggatul dara ca këlëb boobee ndax moom ak Diego Simeone mi leen di tàggat seen diggante neexul duñu jaaroo taal li mu bëgg moo di jugee ca këlëb boobee Paris nag dañu ko bëgg jamono ji Paris li ñu bëgg moo di xaatimal ko contrat waaye gone gi li ko gënal moo di waa Paris gën a baral jéego yi ndax file ak fukki fan waa Atlético dañuy dooraat entraînement yi te moom kat bu Atlético di dooraat entraînement yi bëggu fa nekk ndax moom ak Diego Simeone seen diggante neexul dara lim bëgg moo di jugee ca club boobee bëggatul sol mayo Atlético de Madrid Paris nag dañu ko bëgg jamono ji ñoo ngi càmbar ay mbiram ngir xaatimal ko contrat bu ñu sukkandikoo ci aas yéenekaay ñu jugee ci Joao Félix ak waa Atlético de Madrid dem ca waa Real de Madrid ñoom nag ñoo ngi càmbar mbiru doomu Canada bi di Jonathan Davis mi nga xam ne ma nga ca Bayern de Munich jamono ji nag waa Real de Madrid li ñu bëgg moo di su fekkee Ferland Mendy jugee na ca club boobee ñu jéem a dem ca Bayern de Munich jëli doomu Canada bi mu taxaw ca latéral gos ba doxal waaye su fekkee Ferland-Mendy jugee fa moom du ñu ko mën a jënd waaye su fekkee Ferland-Mendy jugee na fa li ñu bëgg moo di jëli doomu Canada bi ca Bayern de Munich mu ñëw foofe wuutu ko fa doxal xibaar boobu AS yéenekaay moo ko xamle ñu jugee ci waa Real de Madrid ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Pays-Bas bi di Frenkie de Jong moom nag waa Manchester City ànd ak Pep Guardiola dañu ko bëgg xam ngeen ne Guardiola seen capitaine bii di Gundogan dañu ko ñàkk Barcelone moo ko foqati ci ñoom loole nag jamono jii li ñu bëgg moo di fayu ko doomu pays ba bii nag la ñu bëgg a jëlee ca Barcelone muy Frenkie de Jong ñoom noppi nañu ngir def ca cent millions d'euros jëlee ko ca Liga Santander ba yóbbu ko ca Premier League ba mu doxal jamono jii nag ñoo ngi càmbar ay mbiram bu ñu sukkandikoo ci sa sun ñu jugee ci Frenkie de Jong ak waa Manchester City ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Liverpool ñoom nag am nañu milieu de terrain bu bees tàq muy doomu Hongrie bi di Dominic Szoboszlai mi nga xam ne ma nga woon ca RB Leipzig contrat bi ko bàyyi woon foofee nag jeexagul woon waaye clause bi la waa Liverpool fay mi ngi toll ci soixante-dix millions d'euros jamono ji nag xaatim na fa contrat wu juróomi at numéro huit bi nga xam ne moom la fa Naby Keita bàyyi woon moom la jël kon saison bii di ñëw moom lay boot di doxal ca Anfield muy doomu Hongrie bii di Dominic Szoboszlai mi nga xam ne la muy def mën na ko lool kon nag yogoon club ànd ak waa Liverpool am nañu milieu de terrain bu bees tàq ñu jugee ci waa Liverpool dem ca waa Arsenal ñoom it ñoo ngi waaj am gan gu bees tàq muy doomu pays ba bii di Jurriën Timber mi nga xam ne ca Ajax Amsterdam la nekk file ak quarante huit heures maanaam file ak ñaari fan soo moytu lépp mën naa yemb mu xaatim ca Arsenal ndax Arsenal ak Ajax Amsterdam daanaka juboo nañu ci lépp gone gi nag li waa Arsenal def ci moom mi ngi toll ci quarante et un millions d'euros plus bonis bu toll ci cinq millions d'euros olof di ko wax buuñaa te daanaka nag juboo am na ci diggante ñaari club yi file ak suba wala ginnaaw suba mën nañu ko officialiser mu jugee ci Ajax Amsterdam dem ci Arsenal doxal muy Jurian Timber nekk défenseur bu footballu pays ba am ci moom yaakaar ñu jugee ci Jurian Timber ak waa Arsenal dem ca waa Atlético de Madrid ñoom nag ñoo ngi waaj a am latéral gos bu bees tàq muy doomu Espagne bii Naby Galan mi nga xam ne ca Celta de Vigo la nekk moom ñoo ngi koy xaar suba ca Atlético de Madrid mu amal visite médicale su lépp yembee nag dina xaatim contrat wu ñetti at